toutes et à tous euh, daleen ak jàmm seen émission le rendez-vous de Sénégal 7 le rendez-vous di émission bu leen accompagner seen biir euh, site internet préféré du lundi au jeudi di traiter euh, ay thèmes d'actualité yoo xam ne rek soxal na dundu doomu aadama yi comme ni ñu koy defee à chaque fois buñ fi nara waxtaanee ay thèmes dañ fi dalal koo xam ne rek tout au long de l'émission daf ñuy accompagner ngir indi ay éclairage yu am solo par rapport ak yi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee lu moo tax aujourd'hui nag j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Malal Talla du mouvement Y'en a marre salaamaaleykum Malal. maaleykum salaam. na nga soxna si bi yi sant yàlla bu baax. kontaan ci teew ci émission bi. merci beaucoup le plaisir partage partagé mais malal balaa ñuy dugg suñu waxtaan bi dañuy rek euh, jàll euh, tey nag Sénégal mun nañu wax ne tiis bu mag moo fa am avec décès bi nga xam ne ñaari xalif généro yi bu Layeen ak bu Canaba euh, mu nekk période boo xam ne aussi dañuy gis kilifa yu bëri aussi di génn àddina ba nga coono nga siy def. waaw di leen ñaanal yàlla. teeru leen teral leen ba pare dencal leen place bu kawe ci si parce que kilifa yu mel noonu ñëpp xam nañ seen rôle ci réew mi c'est des euh, amortisseurs sociaux mm -hmm. ils, ont joué un rôle très important ci mm -hmm. équilibre social bi Sénégal am ci jàmm bi fi ne mhm. donc ñooñu bu ñu leen ñàkkee mooy ñàkk nañ ay nit ñu mag ay nit ñu am solo ci réew mi donc yàlla na leen yàlla xaare àjjana mhm. di ko jàll toute la communauté musulmane mhm. di ko jàll tout le Sénégal di ko jàll particulièrement la communauté layène ak la communauté euh, Ndiassane xaadar donc di wax ni rek effectivement euh, booy xool aussi ay mag la ñu woon quatre-vingt-quinze ans kenn kii keneen ki xaw ma ñaata at mm-hmm. donc euh, am na lu ñu jot a dund di leen ñaanal rek yàlla xare leen àjjana bu baax a baax. Mhm. mais constat bi mooy euh, daaw ak ren dañoo gis ne ñu ëpp suñu ay kilifa kilifa yu féetoo si aada bi wala sax suñu ay autorité rawatina ñi nga xam ne ñoo ñuy gunge par rapport ak suñu jaamu yàlla dañoo gis ne carrément dañuy nekk di génn àddina depuis euh, daaw ba ren est-ce que loolu waruñoo interpeller euh, tous les Sénégalais pour ñu gën a defar waat seen toogaay le sens de la responsabilité. oui dans quel dans le sens global par rapport ak suñu. <laughs> waaw waaw xam nga dee moom. xam nga dee xam nga dee moom du jaas. Mhm. te yàlla moo ñu sàkk mooy décider jour bi ñuy ñëw. Mhm. mooy décider jour bu ñuy dem. dee rek mooy lu particulier kenn mënul xam kañ lay dee. Mhm. c'est-à-dire bàyyiwul ndaw bàyyiwul mag wante nag comme li nga wax. Euh, booy perte ay mag ci sa mhm. réew parce que mag monument la mag comme ni ko bindkat boobu doon waxe un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle mhm. parce que mag bu demee rek mag patrimoine la mhm. bu mag demee rek mémoire réew mu ngi dem parce que mag toujours dafa am yu bari yooyu mën di nettali di ko fàttaliku di nga wax sama maam daan na wax naan mm-hmm. te sama maam daan na wax naan fàttaliku la mais en même temps histoire la ci histoire la ñuy renvoyé ci démb donc euh, war nañu di profito ci mag ñi bu baax a baax mm-hmm. di fexe di denc bu baax ak sàmm li fi mag ñi bàyyi ça c'est très très important war nañu gën a fonk mag ñi gën di leen dénk kàddu gi ba pare gën di leen topp pour ñuy mën a xelli seen xam-xam pour ëllëg buñ fi jógee ñi fi ne ak ñi fi war a ne mën koo jëriñu c'est important mal on va parler autre chose nañu wax euh, par rapport à Covid-19 troisième vague euh, variante Delta mu ñëw avec force les gens morts ñu ëpp ci ay cas grave aussi ñu koy seetlu mu am aussi ay mbir yu doy waar jam par rapport ak euh, vaccin bi ñi nga xam ne dañoo nangu vacciné wu ñi nga xam ne nangu ñu vacciné aussi ak tamit nag surfacturation yi nga xam ne ñu ngi koy dégg par rapport ak ay denrées alimentaires 94 milliards yi ba force Covid-19 bi ñëwee de manière manière globale euh, gestion Covid-19 ak déni bi nga xam ne certains de la population ñu ngi koy def par rapport à ces vaccins xam nga d'abord Covid bi bi mu duggee Sénégal mhm. les Sénégalais se sont ku ci nekk fàtte fi nga bokk pour gunge état du Sénégal mhm. pour mun a gérer pandémie bi mhm. ñu gis les opposants les plus farouches la société civile la plus réticente dem fekki Macky Sall fi mu ne jox ko na ko ginnaaw bi mu noo ne soxla naa ñëpp ci ginnaaw loolu Macky Sall également dégager une politique jëmale ko ci Covid jël enveloppe bu mille milliards amaana sax am na lu ci toftalu jëmale ko ci lutte pour pandémie bi ñu mën a jàmmaarloo ak moom am na lu artistes yi jot am na lu artisan yi jot ku nekk ci secteur bu nga ne am na loo xamante ne jël nañ ko effectivement jéem lu ko dimbale pour mën la dàmp ci Covid bi mm-hmm. mais ñu seetlu ni effectivement euh, il y a eu un comité de suivi qui a été mis en place mm-hmm. donte rôle amu ci droit sanctionnaire je pense que bu ñu jëlee lu tolloog mille milliards dugal ko ci mbas mi am na fu ñuy toll aussi war nañ ko saytu. pour xool ndax yëf yi dem na ci fi mu war a dem wala warul dem ci fi mu war a dem. Mhm. il y a également la mise en place d'un couvre fa mhm. état d'urgence et cetera et cetera. loolu aussi am jeexital bu xaw a doy ci dundu population bi après l'état du Sénégal a compris qu'il fallait procéder à des mesures d'assouplissement maanaam desserrer mhm. wàññi mbir yi xool naka la ñuy ubbee mais balaa ñoo jëm ci loolu effectivement ñu ngi dugg ci ay événements yu am solo yoo xamante ne ñu ngi leen di woowee les événements du mois de mars mu amoon ay toj ay yàq ay taal askan wi wane ni mer na mais li déclenché mbir mi mooy problème mu Sonko. Mhm. mais ci problème mu Ousmane Sonko nit ñi profité ci wane ni effectivement ñun tëj ngeen ñu lu yàgg xiif nañu mar nañu sonn nañu tàyyi nañu amuñu liggéey te li ci ëpp doonoon ay ndaw. Mhm. président de la république effectivement génn am lu mu ci wax. ne dégg naa leen ginnaaw bi mu waxee loolu mu mel ni ñi mu àndal dañu foog ne mbir mi dafa nekk ci wan président ñun yow lañ àndal mel ni en fait tout suite nit ñi dañu war a dajalu ci la ay tournée économique commencé am ci la ay rassemblement également de l'opposition commencé am ku ci nekk reprendre sa activité politique parce que ku ci nekk effectivement tu sens la nécessité de te retrouver avec tes troupes alors ñii dem tournée économique à Kaffrine tournée économique euh, dem côté Pod dem côté Podor Matam mm-hmm. dem côté Sédhiou et cetera et cetera ah foo dem rek gis ni que ñi ànd ak président mobiliser nañ ay nit pour wan ko ni am na sax ñi ci def ay nit yóbbu ñu jële ay nit ay dakaar yóbbu leen ba ay Fuuta wala yóbbu leen ba feneen mm-hmm. alors que le problème n'est pas là mm-hmm. le problème à la crise quand le président disait que man dégg naa dégg naa ndaw ñi j'ai compris nit ñi li taxoon ñu génn non seulement la question d'emploi de l'emploi était là mm-hmm. la question également de de la question de l'emploi était la mais la question de la préservation des acquis démocratiques mu ngi fi woon également mm-hmm. mais liñ ciy seetlu mooy après il y une loi qui a été votée mooy loi sur le terrorisme sur le terrorisme loi bi indi ay problèmes yu bëri ñu jàppoon ci ñoom kilifa ñoom Simon ñoom Karim Xurum Xaq ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. mu nekk mbir boo xamante ne dafa mel ni sunu nguur yi du ñu jàng ci situation yi nga xamante ne ñoo wees mhm. des fois di nga voté loi mu jàll nga jàpp ni effectivement que yow am nga doole mais boobu fekk na hmm, askan wi naan plus un maanaam def nga lii d'accordu ma jàll na plus un nga defaat beneen d'accordu ma jàll na plus deux plus plus plus mu nekk mer bu askan wi di dajale mais Serigne malal doguma la sax existe na depuis 2007 toilettage rek la woon. oui wii mais effectivement les gens n'ont pas été d'accord dans l'approche dans com dans comment ça a été mené donc mu indi ay problème mm-hmm. mais alors que bu nit ñi ci jógee ci ay situation de crise balaa ñuy daw di làkku ci ay loi wala di daw di dem ci ay mobilisation politique que ça soit de l'opposition comme di pouvoir est-ce que da nga bokk si ñi nga xam ne dañuy jël euh, cette loi toftal ko ak événement de du mois de mars. oui oui bokk naa ci ñi mën a gëm loolu parce que ni mu demee la parce que pour man uh-huh. euh, oui il faut préserver le Sénégal du mais pour man urgence bi ñu gën a am mooy Sénégal dëkku dialogue la dañu jóge ci situation d'émeute yu tar yu fi musul am na pàcc yëpp dajaloo waxtaan. effrité c'est-à-dire génne waxtaan ci problème bi def fond en ñu jël ci ñëpp san par parloo nit ñi waxtaan ci génn ci ay solution pour ñu bañ a delluwaat ci situation bu mel nii parce que problème kenn du ko kenn ko différer parce que boo ko différer da ngay dox jamono problème bi nga différer woon newaat cëpp sa kanam taxawaat sa kanam donc en fait régler woo problème da ko différer pour man les autorités politiques doivent faire beaucoup attention faire beaucoup attention mooy bañ di foog ni que en fait euh, puisque y une foule derrière toi puisque les ministres les élus par rapport à un président qui doit venir ci benn dëkk il mobilise pour montrer au président que en fait tu es encore là président def na ko defaat ko élection ñëw gañewu ko président def na ko defaat ko ñu teg ci ay fan ay manifestation yu doy waar fekk ko fi yoo xamante ne en fait dina na mais man xanaa du man ma mobiliser woon tant de personnes par rapport bi may jëm maatam wala bi may jëm Kaffrine du man maa waxoon ak ndaw ñi jam ñaajo mais finalement nit ñi nax nañ ma mhm. parce que problème mu réew réew bu demee ba toll fenn fi situation bi compliqué nit ñi dañ ci war a waxtaan buñ ci waxtaanul niñ ci war a waxtaanee ku ci nekk jël sa ego teg ko fële ñu jël réew mi jiital ko man ma jël fi ma bokk teg ko ne keneen jël fi mu bokk teg ko ne ñu jël li nga xamante ne lool lañu bokk parce que man dafa am fi ma bokk yow nga am foo bokk keneen am fu mu bokk mais ñun ñëpp dafa am lu ñu bokk dafa mel ni Moussa nekk murit ayda nekk tijaan aadama hmm? nekk laayeen ah ñooñu foofu lañ bokk mhm. mais li ñu bokk te mënuñu koo seddoo mooy diine l'islam mhm. donc ñu waxtaane ko donc ginnaaw suñuy parti politique ginnaaw suñuy mouvement citoyen Sénégal lañ bokk et le Sénégal est au-dessus de tous ndax bu ay manifesta yenn type de manifestation yi bu amee du bàyyi kenn nul n'est épargné mm-hmm. moo tax yu mel noonu il faut que les gens discutent avec beaucoup de sincérité analyser ko avec beaucoup de lucidité même li ngay analyser bu fekkee analyse yi wane na ni effectivement que yow nit ñi dafa dafa wane vraiment que nit ñi dañ la mere nga nangu ni nit ñi dañ la mere nga jéem a xool ay sortie de solution président Macky Sall commencé na woon comprendre loolu en en disant que j'ai compris je vous ai compris vous ce qui c'est la jeunesse c'est tout cette jeunesse qui est sortie parce que majoritaire, majoritairement c'était ces jeunes-là mm -hmm. mais euh, finalement yëf yi dafay mel ni da ngay dem bay jublu ci yoon bu baax am nit ñu nekk si ginnaaw comme li ñuy wax buura ki dagam mhm. ne en fait way gars yi ñu ngi fi ba tey mhm. alors que la jeunesse est sortie pour te dire en fait nous avons besoin de travailler d'autres sont sortis pour te dire que effectivement suñu démocratie bul ko sal salfaañe mhm. mais ñu teg si quelques justes mu mel ni en fait yow da ngay décider waroog effectivement démarche bi nga xamante ne moom nga jëloon moom moo tax njiit dafa war di ànd ak lucidité njiit dafa war di tëddee njaaxaanaay njiit dafa war di jël li nga xamante ne moo tax ñu fal ko mu jiital ko teg ko ci kaw cest à diir uuf njaboote ñëpp pour mën a jëmale réew mi kanam. réew mi nag. Mhm. nakk na ci situation boo xamante ne. Euh, nous avons intérêt à faire attention. tout à fait euh, Malal euh, yaa ngi wax wàllum acquis euh, démocratique nga xam ne xale yu bëri mën nañu wax ne événement mois de mars yi passé nekkoon loo xam ne ñu loon ko réclamer mais dañoo gis fan yi ñu weesu le président de la république pour ne pas dire le conseil constitutionnel am acte bu mu posé aussi par rapport ak recours yi nga xam ne ñu féetoo si kujje bi nekk fo fooyle au niveau de l'assemblée nationale posé wu nekk mu nekk mbir ne ñu bëri dañoo jàpp ne dañoo salfaañe euh, suñu ay àq ak yelleef rawatina sax euh, violer charte yi nga xam ne moom la justice bi tëral est-ce que vous partagez cet avis euh, man jàpp naa ni bu mbir yi leeree soxlawuñu soxlawul mu ñuy bëri ay loi parce que en fait pour man quand on quand on a moins de loi on est transparent mm-hmm. mais quand a plusieurs lois on cherche à divertir les gens. Et qu'on sait que quand not notre appareil judiciaire, waxuma ñëpp mais li ci ëpp c'est à la solde de l'exécutif maanaam dañ leen di sant ñuy def jëluñu seeni responsabilité bu baax a baax mm-hmm. on aurait quand même dans un pays démocratique souhaité pouvoir séparer l'exécutif ak le judiciaire fii même l'Assemblée nationale des gens qui ont grandi dans des quartiers qui ont eu la confiance des populations qui sont soutenus par les gens de leurs quartier et qui arrivent et qui deviennent des députés mmh. finalement une fois à l'Assemblée ils disent ouvertement que ñun Macky Sall lañ fi nekkal nekkaluñ fi keneen lu mu ñu wax loolu la ñuy def ñun loi bu Macky Sall la teg wala loi bu Abdoulaye Wade teg soxla wuñ du ko di ko réfléchir c'est-à-dire ce mécanisme la nous devons nous battre à réfléchir si comment même la ñu war a sur quels critères la ñu war a tànne un député qui di représenter Guédiawaye ou représenter Thiaroye ou représenter euh, euh, Nguidjilone ou représenter en fait ba Bamambé moi je pense que effectivement ci ci suñu mode de système ci suñu mode de système pour man dañu toll ci li gars di wax il faut que ñu euh, il faut que ñu xoolaat suñu appareil yu ñu yor ak mode yi nga xamante ne la ñuy fale même la ñuy tànnee un maire de la localité quelqu'un peut venir de Guinée il a une man financière énorme il habite Guédiawaye pour un an et il veut être le maire de Guédiawaye